jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ko gisandoo noonu mu doon noonee waa PDS léegi solaga ba nu jël lenn rek la décidé nañ pour jàppale ka nga xam ne moo di Bassirou Diomaye Faye ñoo xam leen na rek Karim mooy Diomaye Diomaye mooy Karim kon nag ñooñee ñu say ñaxtu na rek lu leen dal rek Amadou Ba moo leen ko jàpp moo leen ko teg waaye nag lu si mën a am jamono jee décidé na rek jàppale ki nga xam ne moo di Bassirou jamaay Faye si élection yi ñu dëgmal 2024 ñu say woo nag seen sympathisants yi seen militants yëpp rek ñu fas yéene woteel ki xam ne moo di Bassirou Diomaye Faye si élection yi ñu dëgmal 2024 vingt yéene gagné li nga xam ne moo di dès la première tour ñoo ñe di